asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu sell bi di màggalu Touba nga xamante ne ñu ngi ciy màggal eh, cant nga xamante ne Serigne Touba Xaadimu sol moo ñu ko santale ginnaaw bi mu demee ci tukki bi ba dellu si ñaanu ne bis bu dee saa su delsee nañ ko ko ci eh, santale suñu borom eh, xeebuñu ci ginaar naw ñu ci gëlëm lu ci waaye mën a am rek na ko santale suñu borom ci kaw loolu nag ci la taalibe yëpp chaque année. daje ci eh, kër kilifa yëpp eh, ngir di ko santale eh, suñ borom ci kaw loolu ci lañ daje taalib sëñ Modou yi daje fii ci Daaru Marnaan kër Cheikh Modou Kara la ñoom tamit di fi màggal cant gi comme ni ko sën bi diglee jaam ci jàng alxuraan wàcc ay kaamil durus ay xasida mais également di bernde ndax leen lu ci nekk rek dafa bokk ci santaane sëriñ bi man nag Cheikh Diwane Ndiaye nekk secretaire ci fédération bi euh, damay yëkkati sama kàddu jëm toujours ci cadre bi nga xamante ne man moom laa occupé muy secrétariat fédération bu ñu waxee secrétariat nag mooy li nga xamante ne moo jëm ci archive archive bu ñu koy wax mooy ki nga xamante ne lépp loo xamante ni euh, soxla nga ko ci euh, doxalinu fédération bi 2015 ba suñu joon yàlla tey ji événement bu fi jot a jaar ak lépp lu mën di doon dañoo utal fi fédération bi kay espécial boo xamante ni recettes yi maanaam liy dugg ci versement daayira yi ba ci jaayante yi mais également dépenses yi ñu ordonné ko par évétement donc euh, euh, même cuillère bi gën a ndaw sax bu ñu ko dépensé dañ koy bëgg di eh, eh, leeral di def ay compte rendu di ko jox ay jëwriñu daayira pour ñu koy euh, yóbbu ci seen daayira yi parce que jëwriñu daayira nag très franchement ñoom ñoo nekk relais entre la fédération ak membre yi nga xamante ne ñoo bokk ci daayira bi donc xëy na nag am na ci loo xamante ne bu ñu ba ci biir waxtaan wi ku mel ni sëñ Modou Kara du ñàkk lu mu ci laaj ci rajo sëñ Modou Kara comme noonu nga ko waxee rek euh, li nga xamante ne moo jëm ci euh, réunion yi parce que balaa nga ne naam ne fa te it jëf too gis waxtaan da koy jiitu euh, ndax bu xel yi dajee rek jëf de yomb dañ fiy woote ay réunion yu bare bare bare parce que fédération bi 2015 dañ ko sos mais chaque fois dañuy gis ne ci biir doxalin bi dañ ciy bëgg def ay évolution ñu ngi tàmbale woon ci ay sas par personne individuel góor nangam jigéen nangam ñuy dox di dox di dox ba ci yàgg sa ñuy sas ba par daayira ñuy dox di dox ba si yàgg sa ñu ne nañ jël daayira bu nekk liñ koy sas ci at mi yëpp ñu sas ko ko ci e, ci liñ koy sas ci e, événement ñu calculer ko ci nga xamante ne ñun moo nekk suñu cinq événement par muy màggalu Daaru Musi màggalu Touba màggalu diwaan gàmmu diwaan ak ziar bi mu nekk cinq événement yoo xamante ni benn bu ci nekk rek e, fédération bi daf ko bëgg a jël en charge donc loolu nag buñ ko dee def chaque événement nga bëgg a jox aw sas ab daayira te daayira daayira yi sax booy xool dëkk yu ci bare bari amuñu ay daayira kon liy gën mooy ñuy man di daje par weer boo nu daje par kenn ku nekk ñu xool liy yella ak yow par at ñu diviser ko par douze nga di ko indi par weer nga xamante ne dana oyof ci yow loolu la ñuy waxtaane woon ba tàmbali ko di doxal ci kaw loolu daayira bu mel ne daayira Dakar macha allah wax dëgg yàlla moom mu koy respecté bu baax a baax daayira bu mel ni daayira Mali également moom dafa joxe atam bi yëpp li mu waroon joxe eh, bu ñu ko calculé lu ko waroon joxe am na ci daayira yoo xamante ni joxe nañ trois mois yenn ñi 2 mais am na ci ñoo xamante ni wax dëgg yàlla jaaruñ ci. te jaaruñ ci parce que xëy na seen i jëwri ñëwuñu wala parce que xëy na comme ni ñu koy waxee rek daayira dafa amul ca dëkk ya. parce que turu daayira ak dëgg-dëgg euh, mooy mooy dëkk boo xamante ni am na jëwriñu daayira am trésorier am secrétaire ñuy daje par weer te loolu ñi ko am daa bariwut loolu moo waral lu ci bëree bëri liggéey bi ci côté boobu noonu ci daayira yi dafay sooxee dafay yel nag dëkk bu ci nekk jii mu adopté wu ci doxin boobu fal euh, euh, d'abord jëwriñ fal euh, trésorier fal secrétaire ñuy mën di daje par weer wala par àllarba ñoo xam nuñ ko defee waaye di daje baña a bàyyi rek ba événement jot rek ñu ne war ngeen joxe nàngam rek kenn ku ne di ko joxe nu nga ko yëgee. tardement yi dina bari ñu jaaxal kilifa yi loolu tam wax dëgg yàlla te réunion rek di ñëw réunion moo mën a tax loolu lépp yàlla mënuñu ci dimbali daal sëñ Modou Kara daal côté bopp euh, bëggoon naa lool lool lool ñu gars yi kilifa yi gën cee yëkkati seen carte jaajëf euh, euh, noonu nga ko waxee macha allah am na solo bu baax a baax a baax am na solo li jëm ci màggal yi nga xamante ne dafay nurul que ni jekku nañ ko ndax màggal gu ñëw wax dëgg yàlla dañ ci def lu kawe suñ jort donte nag des fois difficilement lay waajtaay wi day metti lool. ndax danga koy waajee ci pression ndax des fois da ngay dem ba xëy na yu fi ne kët na jonn yu ci bare bari doog di tàmbali di mat te loo xamante ni eh, bu doon nit ku judd 2015 ba léegi eh, ba 2021 juróom-benni at bu doon doomu aadama boo ko yónnee am ndox mën na la ko may mënuñu nag lu am juróom-benni at toujours ñu dëkk ci ay soññe soññe soññe dëgg la dañoo war di soññee mais nag am na ci loo xamante ni muy màggal Touba kenn ku ne xam nga ne màggal Touba la kulli alin day am màggal daaru day am diiwaan day am euh, ziar bi ñun ñoo ko tànnal suñu bopp gàmmu day am te bu ci nekk rek ñun xam nañu la ñu war a def la kon nag bu fekkee tout le temps kenn ku ne da ngeen diglu di di xaar ko la soñu ay tardement tout le temps dafay faral di am. Euh, màggalu daaw boo doon xool daaw def nañ ci ay 2 millions 400 nangam ren ji rien que préparation bi rek waxuma la biir événement bi parce que xamuñ lu ñu lu ñu dépensé gun mais préparation bi rek ndax sëñ bi daf ñoo santoon nañu nañ ko defaral ci biir kees gi euh, am mbaar. mais bi ñu demee ba ci biir xëy na euh, xool nañ ne xëy na mbaar xat na fa mais mën nañ ko defar façon néeg boo xamante ni ñu bëri gër bëri gis na ko loolu fédération bi xëy na sax nekkut jëf ju ñu war a wax ndax suñu yéene dafa ëpp foofu noonu ñun ay appartement lañ bëggoon di tabax. ay daara comme ni ko sëñ bi defee ay sëriñam ñun foofu lool foofu la ñu xool suñ bopp xooluñ suñ bopp ci ay kaasa ki ay ay ay ay ay ay yooyu waaye nag pour loolu am il faudrait d'abord ñun ñëpp ñu gën a laxasaay waat takk waat gën a bàyyante xel gën a tappe xol yi liggéey te jëm yàlla sëñ bi rek tax kenn ku ne fàtte sa bopp ndax liggéey bi bu ci kenn ku ne day xool sa morom wala kenn ku ne yaakaar ne succès bi succès bu ma sàmba la wala ma demba loolu rek ñu xam ne sëñ bii kenn ku nekk da ko amoon njukkeel kenn ku ne da ko am àq joor sa diggante ak wax dëgg yàlla yëf yi dina oyof toll waaye bu ko defut kenn ku ne wala kenn ku ne di déglu sa morom wala kenn ku ne di xool sa morom wax dëgg yàlla dana dana xaw a dana xaw a na na sax ndax wax dëgg yàlla fédération bi dox ab doxam fañ ko na toon war waroon nañoo weesu fii la ñu wax ñun donte nag am nañu rafetlu ne mu ngi dox dëgg la mu ngi dox waaye ñun fañ ko nattoon ak mbooloo mu fi nekk jàppoon nañu heure bi waroon nañoo sori lool lool lool ci ay jéego wax dëgg yàlla ñu def ay pexe ñu ngi bay ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéem a daje par ñu ngi dem demal stratégie yu nekk waaye nag dañoo bëggoon nit ñi fekk ñu ca buñ ci nit ñi fekk see rek ci suñu vision yi ak objectif yi ñu am dana yomb mais bu fekkee nga am objectif am vision te mbooloo bi ne ci sa ginnaaw nga xam ne mooy doole ji bu la suivre rek day day da ngay mujj sax da ngay da ngay da da ngay da ngay te liggéey sëñ bi wërta am toqi kon nag ñu nañu suivre am nañ ambition am nañ ay yéene am na xam nañ fi ñu bëgg a jëm euh, juróom juróomi benn at ngay yemoo lu dul ci ay dépense ay màggal rek ay màggal rek wax dëgg yàlla war nañoo jóge foofu te lay tax ñu jóge fa nag il faut faudrait ñu nangu euh, jaayante yi nangu jël li ñu yor di ko liggéeyal sëñ bi ci ci ay bëgg-bëggam ci li nga xamante ne mënta ñàkk dëgg-dëgg am na ñuy def am na góor góorlu waye nak dañu bëggoon ñun ñëpp ñu soobandoo suñu loxo wax de yàlla di gëna a góorgóor di gëna a liggéey sëñ Mourou Kara dal euh magal yi mi ngi am évolution ndax magal ko daa suñu première édition dañu amoon bor 2015 yaakar na né bobu lañu gëdi am bor kon mu ngi dox dañuy def ba yok ren gi dañu def ay ndékki té musul am bëgg nañ magal gu jot luñu def ren bu dañu dañ ko yok ndax bëgg nañ dal bi fu nit nek ci Touba sam xel da nga nan man duma dem furu dal sëñ Mourou karaba ndax berne rek lañu sante ci magal gi ak jàng alxuraan ak xasida kon nak berne gi waruñ ci dess ginaaw señ Kara waaw wax nga lu jëm ci walu carte de membre yi nga xamne dañ ko don defar diko ko jox jëwruñu daayira ñu diko jaay xam nga xam nga lol tam euh, kilifa yi lañ ci bëgg rek d'abord moy ke ni membre moy ku bokku jëndu carte te bokkoo do membre lol carte barké lañ ko tuddee parce que lay euh, lañu ñu jox kee jëwriñ lu mat euh, fukki carte wala ñaar fukki carte bu démé bu ko mënta jaay te na ko sa delo si day préférer mom jënd lepp mu mel ni kon ñaar fukki ginnaaw ñu ngi ci mbooloom nit ñu ngi ci ginnaawam te fekk ne en réalité xëy na moom moo jël xaalisam jënd téeméer téeméer yëpp ñëw joxe versé boo ko xamul nag na yaakaar ne mu am na mbooloom toll noonu nga sas ko sasu toll noonu mën naa fësal lu baree bari loolu dañoo dem ba dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ koo nànd lu ci bare bari nag liñ ci liñ ci bëgg rek mooy sëñ bi nañ ciy dimbale ci côté ba ci ab soññee dëgg la mu ñu ciy dimbale baax a baax dañu soññal nit ñi wax na ko guddi wax na ko bëccëg wax na ko ci baas wax na ko ci néeg lu ma waaye mën di jox bokkal ma ci fédération bii moo ma gënal kon nag moom wax dëgg yàlla kuy jëfeñ ndigal fédération baa ngi noonu kuy doxee nag sa bakken ak na jàpp ne yow sa diggante ak sëñ bi kese la a ah loolu na kenn mënu ci dara waaye ñi nga xamante ne xam nañ ne sëñ bi lii moo di ak bëggam nekkut jëf nekkut jëf waaye nit ku ne boo sañoon sam mbooloo sa njaboot wax dëgg yàlla dañ dañ bokk ci menn menn mbir ndax ni dafa neex. kenn amut ab dal ñëpp yendu ci kër gi ñëpp di waxtaan di kaf di ree loolu dafa dàq ay milliards loolu jox sëñ bi milliards ba pare bokkut fee boo gis sa moroom di di di di fonkee ka neewi loolu gënulu benn kilifa. gënul si kër waxuma laa nag këru këru kilifa nit ñoo xamante ni kenn ku ne da nga yaakaar ne sëñ fa ma teg tegu fa tegu fa keneen ndax sëñ moo matale man damay jàpp ne sëñ bi li wax ak man waxu ko karagam waxu ko bàcc béy bàcc jàpp loolu kenn jàpp loolu ak matam moo toll foofu noonu ñun nag bu ñun réeram xel kenn ko da nga yaakaar ne am nga ci sëñ bi cër boo xamante ni sa moroom amu ko ba nga ba nga jàpp ne ñeeni sax doon déglu kon côté boobu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne sëñ bi ñun ñëpp ak njabootam lañ ak bennoo rek moom moo koy dimbale te mooy suñu njariñ wax dëgg yàlla parce que gëj naa leen a gis ci événement ñu dox fa dox dox am solo donte dañ leen woo dañ leen bind dañ leen jox aw sas mais nag très franchement gëj nañ leen gis lool lool lool lool sabab bi nag ñun xamuñu ko ak lu mën di doon ak lu mën doon dañ ko war waxtaane bu dee ci jëwriñ daayira ba la ñu waxtaane ko bu dee ci doxalinu fédération bi ñu waxtaane ko waaye lu mën a doon rek dañ ko war a waxtaane ndax que sëñ bi këru ñun ñëpp la kenn warut a seetaan dara defi booy asalaamaaleykum wa